wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. Abdou Karim euh, Fatick. waaw. waaw ziar rek sant sëñ Tuubaa commencé ziar bi euh, ndax gis nañ leen nouvelles mesures barrières prises maanaam matuwaay yi ñu jël euh, gis nañ la nga takk masque euh, mu mel ne lépp ci sàmmanteeg tegtal yi waaw waaw ñu ngi koy def bu baax incha allah loolu moom sàmmanteeg maanaam. moom Khadim. waaw noo noo tuddee màggal gi. noo tuddee màggal gi. ah noo dundee màggal bi. am ngaa boole. bëgg nga. waaw. waaw loo bëgg da ngay ndigal la sëñ bi ko digle moo tax ñu def ko. lan ngay wax yi nga xam ne ni xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi fàtte loolu ko. ah lan ngay yi nga xam ne xëy na takkuñ masque. ah ah man de dama koy takk ba saa sikki bu ko boo du wala boo ko waroo takk itam baatu sëñ bi dafa xam a takk ko. ah daal. Ah? noo dundee màggal. bon egg si nañ aussi tamit bon lépp doy na daal. fan nga jógee bon masque yi aussi tamit pour man ñëpp war nañ koo takk c'est pour nous protéger yam ngi na xam. Magal gi waaw Magal gi moom la ñëw pour ziar. ah la ñëw pour ziar. Magal gi nu ngeen masque bi tax takku leen masque sa morom yëpp. sa morom yëpp wax leen takk masque. am naa man la Ablaye Diouf dëkk ñu boo jógee njum gën laa dëkk njum gën te njum laa dëkk noo tuddee màggal noo tuddee màggal màggal bi ni ma ko gisee mooy xol bu sedd ak kontaan ak di ñaan yàlla suñu borom am mbaax suñu Tuuba yàlla suñu Muntaxa Mbàkke yàgg suñu kanam ak mboolem taalibe yi ak mboolem ay bokk moom moo bokkal suñu Tuuba ñu ngi leen sant bu baax itam yéen xam ne yéen taxaw liggéey bi nii ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ñu ñaan yàlla suñu borom dañ ko tewee at yi at dañuy defal ñu taw fii defal ñu jàmm masque na nag moom ndigal la ndigal nag doomi adama nag dafa war a sax ndigal murid dégg day sax ci ndigal suñ bi moo ñu ko digal war nañ koo def wutul góor wutul jigéen wutul mag wutul xale ndax pour aar suñu bopp kon nag ñu ngi sant suñu borom ñu si mun daka digal dañ ko war a bu baax a baax ndax suñu aar suñu njëriñ la suñu njëriñ fii suñu ëllëg la. neex ziyaare nañ ci jàmm dugg nañ bërëb yi ci jàmm neex na moom macha allah. ana masque bi masque bi. masque baa ngi nii. aja takkal. màggal gi ren dafa dajeeg feebar sëñ Muntaxa digal taalibe yëpp ñu takk masque lan ngay wax sa mbokk yi sa morom yi. ah xanaa ñuy takk masque bi feebar bi de moo ngi ci réew mi ba léegi dañagul xanaa rek dañuy jéem a moytu mesure barrière li ñu sant ñu koy def loolu rek man laa leen di conseiller. ñibbee ndax da ngay continuer di topp tegtal yooyu ba ñu yem rek fii ci Touba. ah waaw parce que man damay takk masque teg topp tegtal yi moo tax ma yor sama masque yi taf ko te naa sama